Ne ni itam mësul gis diir bu gàtt bi yonent bi wootee ak bi muy wuy ji boromam li ci dëggal ci wàllu révolution xëy na révolution sax baat la boo xam ne dëppoowul ak yonent bi parce que li yonent bi di liggéey ëpp na révolution ëpp na ko mais comme tubaab révolution la xam ndax révolution ak révolte bokkul révolte mooy gàddu sa diplôme ku la neex saaga waaw ku la fekk sa bureau bu la neexee ñàkki ko teggin parce que tubaab yee la yar léegi dootoo nit ku ñuul tubaab nga kooku mooy révolte révolution nag mooy li nga ci jàng nga ñëw jëriñ ci nit ñi li leen ci amalul njëriñ nga bàyyi ko te ndey du la ci mere tant du la ci mere bàjjen du la ci mere waaw kooku mooy révolution mais li yonent bi def ëpp na révolution waaw nun ñi ñëpp jaar nañ ci révolte kenn ku ne jaar nga ci révolte xamuloo ni révolte ki koy def dafay dof doflu boo too defe ni dafa ñeme mais dafa topp bànneexu ba kanam rek dara nekku ci